dinaa ya ko yene def tay dama koy ya def ngir jëmmi sëñ touba sa jëmm waaye du la ci laaj dara ma ko kon Basiru ngi ni mo doon ñew dem wahak préfet bi and ci ak mom lool ak soxna Aminta yum ma fa eh. ne ñu wax ak ñako wara nat moy taal otoom jeli len ñew sumi ko and ak ñom di nat ba nat fi juroom ben parcel ak ñet te dërëm joxuma ko ko waat ko jëmmi sëñ touba kon ma ngi ñaan fu mu mën mu bu ko dara encore sañ naa ku nu defal aw yiw ci seen ci ci yalla ak sëñ Tuubaa no sañ la ñaanal juga mbay yalla nako yalla yok mako maa wax man man Mourtalla ndax dafa jëf buma ko santan mu def ko sax ma gërëm ko waxuma ne nak bi nga xamé ni da ko jëf te santuma ko ko walbati ko fek may defar barab bi mu jaar fi rek am fu mu jaale ji day def bu déggee ku gañu fi mu jaale ko depp fek fi Basiiru ñom ñi defar mu ne lu ñi def fi ñu ko barab bi da la ñuy defar man lutax waxu ñuma ko sëñ Abdou Thiam ñoom ñekk Cheikh Thiam ñoo ne ah, moom kat xam naa borom ki koy defal de moom daa wax ni ginnaaw barab la moom dooma ko war a def waaye du lu ñu war a yëgle fenn di ko di ci wax kenn dara mhm. fii mu toog yëfi ku jàng tubaab la def xaw ma nu mu def téléphone bi xaw ma vocal ngeen di wax xaw ma mhm. dafa vocal ñu toog tuuti rek yàggal it waxtaan wa ñu andi ñaari tonni ciment fii te laajuma ko ko ci ci barab bi kon moom sant nañ ko gërëm nañ ko ab taalibe la xam nañ ko sëñ Modou Abdoulaye mooy sëriñam moom sañ sëñ Basiiru xujja waaye jëfal nañu noo ngi koy seeraloo suñu borom mi nga xam ne du wóote ay jëf te moom rek mooy fay ay jëf moo wax it ni wa an laysa lil insaani ma saxe wa na sax yow saw fa yure su ma yu gisee gisee la fay ba ba muy sari ak yeneen sax waaye foofu day na cee kon sant nañu gërëm nañu jumaa ji moom ngoog bi mu noppee itam bis yi tey jii laa ànd ak sëñ Maamoor moom sëñ Fallu bi nga xam ne sëñ bi mooy maamam nu dem ma yóbbu siyaare siyaare ba bataaxel baa ngi nii bi ma ko yóbboo jox ko sëñ bi sëñ Cheikh Lappé jàllale nu jàllale gu rafet nam ko daan defee nu nekk ak sëñ bi noonu képp ak moom ba mu ko defee fi saase mu daan ni nañ ko julli ajjuma nañ ko julli ajjuma kii kii bu ko jël ci kii bi bu ko bu ko jël ci Euh, kii man ko koo xool waaye bu ko jël ci kii bi euh, nañ nañ ko daal di jëli ajjuma ma xam ne ndigal a ngoog moo tax xawu noo jàkkandi ko sax waaye nu daal di fas yéene rek def ko moo tax euh, sant rek lañ cay def xam ne jumaa yi sëñ Tuubaa jumaa yi sëriñ Faatu Jaxate la ak mboolem njaxate nag mm, damaa am nag aw manin Jaxate daa doy waar lool njaxate sëñ daam am sëñ daam jóg rek njaxate daa moom dañoo góorgóorlu ba xam seen bopp faw nag nga góorgóorlu tegu ci lu ñu xam mbaa duñ la topp duñ la teg fenn nag ndax sëñ bi dani wawa jabat tanxatu man yax foore sool <coughs> salaax alayhi man bi xii yax boobi sool min ru asa i diini sil kamaali man laa yoraa min hum siwal jamaali loolu dégg ngeen ko moom jërut ma di ko leeral war na ci nit ku nekk mu topp koo xam ne kii ci njub la nekk di jaamu yàlla te di ko teg ci sunna muy koo xam ne boo ko linkaaree xool ko biiram ak biteem doo gis ci moom dara ci sikk waaye da caa dolliwaat ni fa kullu man ataaha haynan jaahila fala yasaalu fala yasaalu xaa'ifan wa saahila koo xam ne topp na ci courier mbaa ku jubut mbaa ku xamut doo dañ di ragal di tiit doo dañ di suufee daa di wax ne xadiisu laa max lil maxlooxi fii maxsiyatil xaalixi tawfiixi xifi yonent bi dafa wax ni kenn du topp ci mbindeef ci lu neexut yàlla laa taaxata lil maxlooxi fii maxsi fii maxsiyatil xaalixi téere bi ñuy jëkk a jàng sax hadiis boobu rot na ci muy lax dar yiw ñëpp gis ñu bari gis nañ ko moo tax euh, may def man bu may ñaan bokki njaxata yi nga xam ne ñoom ñoom lan bokkal damay bàyyi fii sañ am satu laay tudd ak sañ bay jaxate ak sañ makumba jaxate ñoom laay ñaan ci seen daraja la ñuy semb àgg ndax ñooy samay maam te leer na ma ne bu ma ñaanee ci seen maam danañ ko am ak njaxate gépp nag kii moom laal ko sax duma ko def ndax euh, daa ami melo daa denceen yëfam ni cel waaw <laughs> kon nag moom jërëjëf barke Sëñ Tuubaa بارك في عبد الخديم بارك في عبد الخديم فله خير حفظا وهو أرحم الراحمين له محاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون ما حفظناها من كل شيطان رجيم ما حفظا من كل شيطان مارد ما حفظا ذلك تقدير الحسيد الحليم إن كل نفس لما عليها حافظ إن بس ربك لشديد إنه هو يبدئ ويهيد وهو الغفور الودود المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ تمم مرادي وسفر الحمر يا سمدي وكن لي الدهر واشحن لي رضا الله أتم ما نويته في سر وهرن بجاهه من بره بركب شيخ مولى منتخبك بركب شيخ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 kal ya nu gindi الجد والجبروت لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال من فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيغني قلبي لا إله إلا الله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 borom barrière or ba ca Madina Muhammad Rasulullah la ilaha illa ah, waaw ni bir sa uh-huh. kër baay ngërëm nga doon wut faal am nga koy Modou yaa jaay ni bir sa kër baay ngërëm nga doon wut am nga ko am nga koy waaw waaw di sunu maam booy kenn ngay udan bi yoxbituna man xablana talaltana bika alayka yaa man bi yamolo kulana qi تلال كنابك بك عليك يا رقي يا من بي ملوك ناقي إدي انا صراط المستقيم وبي سئب كلنا بلا سقي لك الكتاب يا قريب يا مجيب لا من بي لا ثمن خير العجيب أبلي ولي لسينا تعالوا بيا أدن بي لخير مبلغ إياك نعبد ونستعين فإنك المفود والمؤين يا ذا المستقيم أبلنا أدن بي يغبيتنا من قبلنا تلالكنا بك عليك يا رقي يا من بي يمول كل نقي وأبلنا نور على نورين وابلنا سعادة دارين بالنا خلي ديك البحر